بسم الله الرحمن الرحيم سرين بي غنو سنتي الله جولي تي يونتو تاد بي عليه الصلاه والسلام نيغي نييو جوغي كاولا تي نديغالي شيخ محمد الماهي شيخ ابراهيم نيس خادم الامتي ويبل ني بول ني اك ركام شيخ محمد سراج الدين بول ني اك دومم تاوم شيخ محمد مصطفى ماهي اك شيخ ابراهيم فال ak Cheikh Haydara ak mboolem délégation bi ñu ànd ak ci taalibe yi ci mbokk gi yëpp ñëw fekk li si bés bi nga xam ne bésu lislaam la ci bés yàlla yi la bokk yàlla dogal tey ci tey yaa amee taxawaayi taxawaayi bés bi sang bi Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ne woon nañ ànd ak waa kër gi yëpp te tey su ko jamono maye woon su benn ndog ngant amuloon jàpp na ne toog ak yow feggoog yow ci waajaay bés bi ba bañ cee àgg loolu gën a jaadu waaye ku ne xam na ne ngànt moom ngànt la te xam na ne danga ko nangu loolu ndax xam ne li ngeen bokk jàpp na ne it xam nga ni bés bi toll ci moom fuglu na ko ànd ak képp ku ci bokk oo ci lislaam ñëpp ndax moom jàpp na ne mooy liggéey liggéeykatu ñooñ lislaam mooy xaadimul ummati boole ñoo waa këram ñaan na ñëw ñëw ziyaar si la ndokkeel la ñaanal la yàlla sàkku nga ñaanal ko moom it ngi ñaan yàlla nga yàgg fi yàgg taxawaay lool lépp luy sa mébét mu àgg ci sa kanam ci sa loxo ci kanam njaboot gi lépp lu sëriñ bi mébétoo nit nga fekk ko fi lépp loo ci waslu yàlla na yàlla àggal ko ci kàttanal la ak wér ak tal wax na ne mu ngi ndokkeel topp mi yëpp ndax bés bi bésu topp murit la yàlla dogal na yéen a nekk ci bunt boobu mu ngi ndokkal mbooram topp murit mi di leen gërëm di leen ziar di leen ñaanal am na ay hadaaya yu yum jëloon pour feeñal eh, xolam ci bés bi ebal nañu ñu indi ko ñu ngi ànd ak eh, ndaw yi nga xam ne jaww li ñi nga xam ne ñooy saytu loolu waxoon nañ ñu indi lu jëm ci mbiru reeral gan ñi rek jox nañu ñaari gëlëm ñaari nag ak ñaari toni dugub pour ñu ñu dimbali ko ci reer yi gan ñi xam na ne tewut xam na ne ñàkkut fiit waaye pour wane moom xolam ci bés bi moo tax moom noonu la ko jàppee. ñu ngi lay ñaanal ñun tamit ñu ngi lay ziare ci buntu boobu nga xam ne moo ñu ceebal eh, di ñaan yàlla mu nangu ñaan yi ci yéen ñaar ñëpp ci ñun seen ñaan yéen mooy mooy li li ñu jëri ñun ci àddina ci àllaaxira kon ñu ngi ñaan yàlla nangu seen ñaan ci zaahir ak ci baatin bàyyi leen fi ñu yàgg a ñëw di leen fi fekk wa zaalika alallaahi bi aziz wa salaamaaleykum wa rahmatullah nee na alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax itam ci taxawaay bi. mu ne di sant yit ci taxawaay bii. mu ne tox taxawaay bu jógee ci kilifa gi leen yebal. mu ne ngeen kilifa yu am yaakaar. mu ne ngeen ñëw teewal ko fii. Eh, mu ne dégg na kàddu yi bu baax a baax. mu ne kàddu yu sedd xolam la. mu ne kàddu yi dolli yaakaaram la. mu ne kàddu yu koy soññ la ci boppam mu ji fas yéene gën a feddal ay laxasaayam fas yéene ko gën a ànd ak yéen sax dàkk ci jaamu yàlla ak liggéeyal ko ci lislaam mu ne ñi ngi sant di gërëm bu baax a baax mu ne yëg na jéego yi mu ne yëg na jataay bi mu ne na ngeen ko delloo ziyaareel ko sëriñ maaxi bu baax mu ne santal ko ko bu baax mu ne ne ko yëg na taxaway bu baax a baax mu ne ñoo koy sant yalla bu baax a baax mu ne ñaan ci baaxam serigne touba suñ borom gën go gatt gàttandoog tawfeex ci liggey bi mu ne te wér jitu ja fan wu gudd bu and ak kattan buñ gëna a gën a ci liggey bi buñ ci gën a mën a suñu yene mu ne cant gi amul fu mu yam mi ngi sant bu baaxa baax mu ne di feeñal mbégteem bu baax a baax mu ne xolam set na guy jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bismillah bismillah waaw sinu sayn waaw هو الأستاذ rahiim eh, mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam di leen ziare ñu ngi fi tey ci Touba ci eh, kër Cheikh eh, Mouhamadou Mountakha xalifatu Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, di njiit ci lislaam bi am taxawaay boo xam ne tey dafa too tombe ci bésam yi nga xam ne moo koy taxawee muy waajal màggal Tuuba bi noonu lañ ko mën a tuddee ñun waaye muy liggéey boo xam ne liggéey la ci tool yi lislaam boo xam ne yaakaar naa ne fi la ko fekk ay maam ay baay ay maam kenn ku ci ne lu ci def ci itte jim ci def mu ñëw ba ci loxoom ñuy wax ne waral mooy tombe ay gaaf ku nekk xam na ni yokkute am na ñu ngi ziare mbokki Touba ñëpp ci bés bu tedd bii nga xam ne moo dëgmal si nekk suñ kanam tey nag ñun ñu ngi ñëw woon teewal si xalifatu saaxibul fayda Cheikh Mahamadul Mahi xaadimul ummati moom nga xam ne moom tur woo la jël la ko mu gënal ko lépp luñ ko mën a ooyee ndax loolu mooy principe moom mu ne woon nañ ñëw feggoo si ak mbokkam xaritam dëkkandoom euh, doomi baayam doomi ndeyam kenn ci njiitu lislaam yi fegoo seeg moom ci waajaay bés bi ànd ak ay njabootam ay doomam ay taalibeem ak toppam yëpp tey ku xam Medina te xam ñii ñii fi toog ànd ak ñun da nga xam ne Medina suñuy wax mën nañ wax ne Medina ebal na ñi mu am ñëpp duma dem ci deta yi ndax comme dañuy tënk lañ wax ma damay wax rek ne Medina am ebal na kilifaam yëpp ñu ñëw ànd ak Cheikh Mahamadou Siraji din mi nga xam ne mooy rakku Seydil Khalifa Cheikh Mahamadul Mahi ci suma ndeyjoor soo xoolee ci suma càmmooñ da ngay gis doomam Mouhamad Moustapha euh, Mahi Niass ak délégation yi ñu ànd ak yëpp. li waraloon jotaay bi mooy ñëw fekkale si Cheikh Cheikh Mahamadul Mountakha teewal si Cheikh Mahamadul Mahi indi ziareem ak ndokkeelam ak ñaanam. Euh, loolu moo waraloon jotaay bi recevoir nañu fii ci këram def nañu comme ni ñu Cheikh Mahi di def suñ dajee ak moom ci këram yëg nañ ne ci suñ kër lañ duggoon te Cheikh Mahi ñu ñuy eb loolu la ñu ebe woon def nañu sëñ Mountakha mii li ñu booleeg moom dafa bëri dafay gàttal wax jërek mooy ne kawlax moo ñu booleek moom kawlax fi la suñ baay bu tedd boobu Cheikh Ibrahima Niass dëkkoon nga xam ne moo doon signé al Kaolack yi kon dañuy wax ne képp ku la Kaolack booleeg moom rek Kaolack boole na ko Cheikh Ibrahima Niass loolu moo doon suñu tànk tey ñu ñëw ndokkeel si sëriñ bi ziare si ko teewal si képp ku mënta ñëw te bëgg a ñëw wala mu war a ñëw te bokku si ñun ñu ngi ñëw teew ci buntu Cheikh Mamadou Mahi jo jotali ndokkeel ak ziare yooyu ak yóbbal yi wax ne yëpp ñu indi ko nga xam ne moo jàpp na ne moo war a teral gan yi moo ren war a dalal te yàlla dogal mënut a ñëw moo tax ebal na ñi bokk ci moom ñëpp euh, dindi na ci lim am-amam lépp ne nañ ko le gan ñi loolu daal moo doon tànk yi mu gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu dalal bi ñu dalal dëgg-dëgg xàmmewuñ fii ak fi ñu jugee biñ fi ak accueil nañu accueil boo xam ne wuñ ko ak fi ñu jugee moo tax ñu ngi sant yàlla te yemale kàddu yi foofu salaamaaleykum wa rahmatullah